مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على amna luma bëggoon fàttali léegi sëriñ bi fekk sama wax jeex na te bëgguma kilifa wax may doog a jël mooy ci suñu programme ñun jot na programme bi ñu présenté woon Sénégalais yi daf ci am fànn bu am solo bo xamné ci walu diine kese la demoon muy njangal diine gi daara yi muy institution yi nu ñuy def ba mu jël en compte diine gi moy institution boobu ma proposé nga xamné ne këru diine yëpp dañ fi am représentant lu ñu war def suñu né am nañu pétrole ñu jox leen ne leen fii la gis pétrole ni la toll et cetera lan moo ci seen xalaat waye muy aussi projet bo xamné li nga xamné moy les grands foyers religieux dañ koy moderniser parce que lolu du par parloo de du par parloo mais même ci walu économie état bi moy gagné pourquoi ñi wax tourisme religieux pourquoi Arabie Saoudite di investir li investir yep tay di tojaat Kaaba gi tojaat Médine ay bâtiment yu jar ay milliers de ay millions de dollars ñu tojaat ko défarat ko no xamné parce que xamnañ ni li attirer ci ay nit ak ñoñu li ñi ñew dépenser fofu ci devise loolu dafa baax ci économie Arabie Saoudite bo démon tay Maroc Fès non la mel kon tay so amé fu mel ni Medina Baye nit ñi di joggé fu ne ci aduna di ñëw amana suñu ñëwé condition accueil déméwul nonu nit nu mu bëgg bëgg bëgg bo moytul beneen yoon bala muy ñëw dina xolaat mais tay suñ ko defaroon no xamné avec des complexes hôteliers yu jaar yoon assainissement bu jaar yoon ay infrastructure taleeg leneen lu jaar yoon waxuma la rek gamu waaye ci jamono ordinaire sax nit dina joggé fu sori jël congé ne maa ngi dem noppalu ji fofu mu leer man na ci am noppal waaye na ci am yalla ndax limay may ut ma nga fofu kon lolu euh ci suñu projet la nekkon déjà ku lire suñu programme jotna te sa suñu génné muy fi muy tiwaawon muy Touba muy fenen ak fenen so wéré ci suñu cité religieuse yi ga jàpp na ni état bi dernier année yi amna ay djégo yum ci def wayé gëm na ni war nañ ko ful bu baax a baax a baax مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق صل وسلم دائما أبدا على